ñëwoon tey jii ci centre sectoriel ou euh, Diamniadio mooy centre sectoriel bi ñu jagleel euh, métier euh, motorisation yi ñëwoon def fi tey jii li remise symbolique attestation de formation loolu nak li ko waral ci ben programme projet bo xam mi ngi tudd PAVI PAVI du projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales bon ramener état du Sénégal moi ko l'ocologue ay partenaire bailleur di AFD ak BAD ci loolu moo waral tey ji suñu teewaay di fàttali tamit ni DER ci ligue ak li fi euh, président de la République tegee dafa ni ngeen jàppale ñi nga xamante ni ñi ngi dugg ci activité entrepreneur wala ñi nga xamante ni ñi ngi ci ñu fekk si leen si tey ji nag mu ñu am solo lool ndax dañ ko artisans yi buñu né artisans yi nak moy ñi nga xamante bo xolé xoolee daawuñu am accès ci dispositif état yi tay ji nak li ñu li mu firndeel que def nañu formation ci centre bi ñuy rafetlu tamit téwayu madame euh, madame la directrice de la formation professionnelle et technique représentée tay di madame le ministre Mariama Sarr di rafetlu aussi teewaayu euh, directeur u centre bi monsieur Tavares moy woné ni que lolu yépp tay di ñëpp ci bokk té ñëpp am nañ ci am nañ ci place ah limay may rafetlu tamit moy li ñuy wooyee euh, métier autour de l'automobile mécanique baa ci vulcanisateur yi amna yenen secteur yo xamanteni dañ ci gëna xouss xuus di wane ni que bala ngay wax financement dafa laaj nga jaar ci li ñuy formalisation ak li ñuy formation loolu yépp moo lay permettre tey derrière nga mëna accompagner ci walum financement jappalé leen di lu lol tamit liggéey bi nga xamante euh, tay formateur yi dafal nañu ko euh, suñu suñu récipiendaire yi manam mécanicien, yi nga xamante dañu jógee Sénégal yépp ñu lal ko ci kaw équité territoriale euh, formation boobu boo xamante amul feneen fu ñeewuñu ko kenn te liñ fiy jëlee tey jii ko te waxtaan nañ ci te directeur bi mooy kàddoom tamit nee na dañ leen di continuer suivre pour que li ñu fi jëlee ñu dem nga implémenter ko ci fi ñu nekk ndax li am solo tey jii mooy li ñuy métier autour de l'automobile mooy mécanique beeg yépp ñu moderniser ko ba duñu ñu ñee kenn ba fépp fu ñu dem ci Sénégal tamit ah ñu gis fa même chose nga ñëw Dakar dem Ranérou dem Louga dem Fatick dem Diourbel même chose ngay gis c'est-à-dire ñu am garage yu baax ñi nekk ci métier mécanique yi seen liggéey ñu gën leen cee dooleel gën leen ci kii tamit dinañ gën a yokk suñu loxo te am na tamit leneen loo xam ni dégg nañ ko fi mooy ci wàllum at bi ndax ku ne DER DER dañu ni président def ko jagleel ndaw ñi ak jigéen ñi ndaw ñi nag ñu yemale ko ci ñeent fukki at. tey ji nag dégg nañ fi lu lu lu am solo mooy damay wax sax déggaat ndax déggaat bi mooy lan nee na ñu ñeent fukki at yi war nañ ko romb romb bi nag ñun dinañ ko delloowaat kilifa gi waaye ñun tamit dinañ xool ak équipe yi nu ñuy liggéeyee ndax xam nga bu ñu nee nit ki boo amee ñeent fukki at boo weesoo ñeent fukki at bokkatoo xëy na boo bokkee ci groupement wala bokk ci association loolu limite d'âge bi day tëb

ci ñi nga xamanteni dañu jaar ci formation continue ñi nga xamanteni ni boolewuñu len ci woon moy ñi nga xamanteni ni jaaruñu ci cursus bi jaaruñu ci parcours bi tay ji boole nañ len ci ah, di wax ni dinañ gën a ñun tamit suñu loxo ndax lu melni centre bi ak yeneen centre secteur yi war nañoo gën a mën ci ñom pour mëna wuyu li nga xamanteni OPA yi ndax li ñuy wax li yépp li ñu tënk yëpp tey ji ak OPA yi lañ ko liggéeyal ndax bu ku newul mbooloo doo mun a def sa liggéey ba mu set dinañ fexe gën a xam seen i mbébét gën leen mun a taxaw gën leen a defal ñu am garage yu moderne gën a tax seen métier ci mécanique bi ñoo xam ci vulcanisation bi la ak bépp bu mun ci nekk ak yeneen secteur dinañ ci gën a xuus pour mun a gën a répondre seen i besoins. ñun ñu nekk kuréel boo xam ne dañu nekk ay vulcanisateur ëmb Sénégal yëpp dans les quatorze régions du Sénégal am nu ko doon liggéeyee mu metti woon lool ndax koo xam vulcanisateur xam ko ci cric manuel koo xam vulcanisateur xam ko ci cric bu metti boobu nga xam ne da ngay tëpp ak a céppelu pour pneu bu mun a wàcc koo xam vulcanisateur xam ko sax ci machine yooyu nga xam ne léeg dangay da ngay ba sonn pour mu mun a tàkk état Sénégal DER FJ

mais gi falu dëggu mais gi falu am fula mais gi falu taxaw donc ñun bu ñu demee jàpp nañu ne am na ci lu ñu nekkoon mais am na lu bëree bëree bëree bëree bëri bu ñu manqué woon. léeg-léeg le directeur Sow de ma doon tooñ dama ah boo ñëwee baa ñun gaañ yi de mais li nga fa jàng moom bu yeboo na ko appliqué boo fa àggee laa xam ne am na lu ñu manqué woon mais gàcce ngaalaama DER